Euh, ndax xam naa ne li ngay wax sa xol la jóge euh, ni nga koy waxee sax wane ne sa xol la jóge waaye damaa jàpp dafa kawe lool par rapport ak ñun problème yi ñu am waaw euh, der man affaire école sénégal dama ci xalaat ma bind livre boo xam ne mu ngi tudd ces goulots qui étranglent Sénégal li ma jàpp ni may nga ma ko moo tax waaw Sénégal mënta dem ma def ci benn chapitre tudde ko une école qui n'enseigne plus maanaam école boo xam ne jàngaleetul comme li mm. Bouba enseignant bi dañ ko doon xaar ci muy jàngale léegi jàngalatul day grève étudiant bi ñu xaar ko pour mu jàng léegi jàngatul day contester day xeex day sànni day toj day truc li ko indi mooy système bi la c'est-à-dire université Dakar kenn mënta fexe ba ni mu mel nii mu dem mënta nekk léegi nag ñun ñoo war a xam Sénégal fan lañ bëgg yóbbu réew mi ak fan lañ bëgg a dem de toute façon parce que la vraie question de l'école mooy loolu tey ni Sénégal war a mel fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at fii ak fanweeri at fii ak juróom fukki at choix boobu ñu ngi koy def mu jaar ci suñu école est-ce que dañoo bëgg réew mi continuer mel ni mu mel ni maanaam réew moo xam ni ñiy dund dañuy jund ñiy dee di dee amul médecin yu doy pour fat nit ñi amul école yu baax amul transport yu baax dara baaxul ñuy continuer di dem nii rek wala est-ce que dañu bëgg defar réew mi comme ni ki defar Dubaï amoon vision pour defar ko pour jege Afrique sax comme Paul Kagame amoon vision pour defar Rwanda léegi nag loolu bu ñu ko bëggee bu fekkee dañu bëgg defar réew mi réew mi continuer nekk réew moo xam ne réew mu am doole la moo xam ne ku fa juddoo di nga mën a jàng di nga mën a faju di nga mën a dund normalement boo faatee ñu suul la ci réew mi réew mi stable loolu bu ñu ko bëggee il faut ñu defaraat suñu école naka lañ mën a defaraate suñu école tey il faut ñu xam ni man loolu laa gëm te loolu laa bind ñëpp waru ñoo dem université amul benn pays au monde boo xam ne ñëpp dañu war a am dem université amul benn pays au monde boo xam ne ñëpp dañu war am maîtrise wala licence wala doctorat wala agrégation amul que je voulais dire université du enseignement de masse enseignement d'élite la réew mii bu ñu bëggee mu dem il faut ñu def compétition maanaam réew moo gis dafa am ñu xereñ lool am ñu xereñ aslëf am ñu xereñu yàlla moo binde noonu àdduna àdduna noonu la dafa am ñu xereñ lool am ñu xereñ aslëf am ñu xereñu école boo koy def da nga koy natt ci loolu ñi nga xam ne dañoo xereñ lool da ngay teg ay concours yoo xam ne ca la ñuy jaar nga defal leen école yu baax a baax yu mucc ayib da wax bi comme France nañ def les grandes écoles def Sup Télécom def école préparatoire def ESIC euh, def grande de grandes écoles yoo xam ne nii ñu xereñ yi ñool ñoo fay jaar mu leer ñi nga xam ni xereñ nañ aslëf ñu def leen personnel d'appoint maanaam parce que réew moo gis bëgg na administration bëgg na lépp bëgg na ñuy liggéey bëgg na ñi nga xam ne xereñu ci ci xel nga jàngal leen lu ñuy liggéey ci ay loxo loolu mooy affaire bi c'est-à-dire réew mi faw ñu toj système bi ni mu ñu toj ko def de grandes écoles def ci les meilleurs le reste ñu jàngal leen ay métiers réew mi dafay am pétrole dafay am gaz du modèle français voilà dafay am pétrole dafay am gaz ci diir bu gàtt loolu bu amee nit ñi dañuy soxla ay plombier yu xarañ tey France boo nekkee plombier da ngay dawal sa oto ñëw def intervention ñu fay la xaalis bu bari nga am sa entreprise dañuy soxla ay mécaniciens yu xarañ dañuy soxla ay patron agricole France boo nekkee agriculteur wala ci yeneen pays développé yi da ngay am sa bureau am sa oto am sa lépp. et je roule en di liggéey sa liggéey. dañoo soxla soudeur yu xereñ <clears throat> dañoo soxla ay mécaniciens yu xereñ donc nañu jàngal nit ñi Macky Sall am na lu mu def lu jëm ci loolu ce qu'on appelle les ISEP les instituts supérieurs d'enseignement professionnel mm-hmm. pour man loolu mooy yoon wi c'est-à-dire tant que tojuñu université yi def ay école de formation jàngal nit ñi métier ñu mën a liggéey les meilleurs tu fais de grandes écoles ba pare Sénégal faaw ñu bàyyi littérature université Saint-Louis boo fa demee bii ñëpp lettre la ñuy def mhm. anglais histoire. français histoire lettre persane loolu baax na lool mais demul fenn. donc le système est populiste. dama dama nang rek dama nang rek oui il faut aller vite. li nga doon reprocher professeur. depuis depuis cinq minutes yaa ngi non li may wax ne xam nga hmm? c'est li ngay wax c'est important mais il faut que ñeneen ñi wax aussi mais mais l'école c'est important. mais bien sûr maanaam li ma bëgg a wax mooy d'abord il faut que ñu mettre l'accent sur l'excellence parce que man. compétition laa gëm xam nga Japon pour ñu développer yaa ngi wax correct. et sur les métiers émergents. voilà dañu def ay métiers pare def compétition compétition mooy loolu compétition du rivalité compétition mooy ku nekk nga reconnaître ko par rapport ak mérite bi mu am. les émulations. voilà nga def de grandes écoles def de concours sélectifs jàngal nit ñi science ba pare. et faire euh, une projection sur les donc Yérim Yérim pour être concret tu remets en cause l'accès universel par exemple à l'université très bien le système est populiste totalement ñëpp mënuñu ko dem <coughs> voilà ah, il faut il faut ñu toj te ba pare pour terminer pour terminer je donne un seul exemple par exemple l'économie numérique hmm. l'économie numérique nga xam ni réew yu bari tey yu dem économie numérique moo leen yóbbu ñun dañu am benn chance Sénégal mooy sénégalais dafa xereñ yàlla moo def loolu muy ci wàllu même ñuy jàng alxuraan Sénégal gisoo concours alxuraan bu am ci monde bi sénégalais ñoo koy jël xam nga parce que dañoo xereñ maanaam seen yàlla dañoo may cerveau tey boo gisee ouvrier yi tey boo demee foo dem ci Afrique chef d'état bi yére bi muy sol sénégalais moo koy ñëw Mm. non et là sur Bijou. sur le numérique je vais pas te laisser parler. waaw xaaral ma parce que l'analphabétisme professeur xam nga lii lañ doon wax mooy problème école bi Cheikh moom mi ngi doon wax fu ñu dem c'est organisé. Ah. léegi voilà léegi si on se permet aussi de le faire de cette manière. du dox may ko mu conclure. Charles a la parole après nga wax. du Sénégal est dénoncé dans le monde entier. je parle le analphabétisme numérique ok d'accord dégg nañ ko c'est bon. Yérim s'il te plaît voilà non li ma bëgg a wax mooy tey soo créé woon xoolal par exemple Côte d'Ivoire Alassane Ouattara bi mu ñëwee dafa créé benn village bu ndaw bu nekk wetu Abidjan tuddee ko xaw ma Ivoire éthique xaw ma léegi affaire boobu daanaka man na dëkk daanaka léegi mu tolloog Abidjan lan la def dafa créé benn zone daal ni Ivoirien bu am idée. ci affaire numérique ñëwal fii ñu jox la bureau jox la moyen nga développer Rwanda le gars il naa fekk saa ça tey économie numérique soo créé yenn condition rek àllu jam ñaajo bi nga dagg ko rek créer une zone franche boo xam da nga naan bépp sénégalais bu am xel ci numérique sénégalais am na ñoo xam ne fii ñu dugg école mais li ñu xam ci ordinateur ak numérique mhm. loo rek nga jox leen chance kese kese kese kese tu peux créer facilement cinq cent mille ok maanaam exemple boobu dama ko joxe rek pour wane ni àdduna mi comme ni nga ko waxee monsieur Mbow ni muy doxee dañ ci war a jël ay leçon aussi pour adapter mhm. suñu système moom jàng allez allez Charles voilà gis nga dër